fii tey ci Bignona euh, muy délégation boo xam ne responsable moral bu daari Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssouf Diop moo ko jiite ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké euh, ginnaaw boo xamante ne ay yëngu am na ci biir Sénégal ba ay bakkan rotti am ci itam ñu ci am ay gaañu gaañu yu metti euh, Serigne bi jóg ci dox ci ay tànk am kilifa yu mu yebaloon yabaloon Serigne Bassirou Mbacké Porokhane jiite woon mission boobu. yalla suñu borom dogal itam tanki jamu yi ci serigne bi bëggoon mu am ko ci bi lolu agge nak mu iye juróom fukki million muy 50 million jëmee ko ci ñi nga xamne dañ ci am ay gañu gañu ak ño xamanteni dañu am mbokk yo xamanteni seen bakkan daf ci rot ñoñu nak di lim bo xamne euh, biñ leen xolé euh, fu nek la ne ci senegal waye li ci ëpp ñi ngi nek digënté Dakar ak Casamance particulièrement biñona ak euh, fi nga xamanteni moy euh, Kolda <coughs> biñu tambalé mission bi Dakar responsable moral dar Hizbut Tarqiyyah mi ngi commencé euh, ci quartier Medina face Fass HLM ba dem ci banlieue bi geul tapé euh di moins que Guédiawaye ak fi nga xamanteni moy mooy Yëmbal ba Kër Massar ba Mbaaw fofu yëpp dem na fa ba joxé yóbbante yu ko sëñ bi joxone ndigal mu jax ko nak euh mu entamer état bu euh, Kaolack ak Ziguinchor région de Kaolack daf ci am ñaari dëkk muy dëkk bu ñuy wax Ndofane ak dëkk bu ñuy wax euh, Thiamène Sankhène nekk ci booru médian Sabax foofu itam dafa am ñoo xam ne dañoo wàcc liggéey kon moom it jaar na fa ci parent yooyu famille yooyu jox leen li ko sëriñ bi yónnee woon ak mas ak ak ak ak ak euh, maanaam masawoom bi mu ci jógee nag la ñuy ñëw ci Bignona Bignona bi ñu fi ñëwee ñu ngi jëkk a dem jànki

wax ko ndax moom sëriñ bi ku ne gis na ni saa bu situation bu mel ni amee ci Sénégal dina ci wax dina ci jëf ginnaaw loolu itam euh, ñi xamante ni am nañ ci mbokk yi loru mu massawu leen te ñu nangu dogal suñu borom te muñ ñi nga xam ne itam am nañ ci ay gaañu gaañu mu ñaanal leen suñu borom yëkkati leen ci seen tawat yooyu amit lu lu am solo loo xamante ni yëkkati na ko jàppale leen ko ci ci paju googu ak yëgal leen xam na seen i jafe-jafe te it ñaanam moo ci jiitu euh, ñi xam ne yàlla dogal ñu ñu ñàkk ci seen bakkan am nañu ñaari million ñi nga xam ne te ni am nañ ci ay gaañu gaañu am nañ ci euh, li dale million wala téeméeri junni wala ñeent fukki junni mi ngi aju rek ci méttitu gaañu gaañu fi mu toll ak itam li nga xamante ni paj yi moom moom moom